asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taaliba yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaar bu baax euh, lii nag ma tànn def ko audio ndax ruus naa jàkkaarlook àddina bi di ko wax ci sama làmmiñ mu jëm ci kaw euh, dëgg la boobaak léegi nag nit ñi ñu ngi lijjanti Euh, ak di laaj lan moo tax ñun euh, ñuy xeex ak ayda Diallo ak ñi mu àndal euh, ñenn ñi sax dañuy wax naan waaw pourtant ñoom dañoo àndoon ak sëñ Béthio ba yàgg ñu bàyyi ko di ko xeex léegi nag wëlbatiku nañu di xeex ak Aida Diallo mu mel ni loolu benn continuité la waaye sëñ Béthio liñ leen mën a leeral ci sunu ànd ak moom mooy ak lu mën a xew dañoo àndoon muy sunu jëwrin ci yoonu sëriñ Touba ñenn ñi jébbalu ci sëriñ Saaliw mu boole leen ak moom ñenn ñi jébbalu ci moom directement ñépp nag mu doon seen sëriñ doon seen jëwrin doon seen kilifa nun nu ànd ak moom ànd bu dëggu bu wóor bu leer kanam àddina sépp fu ne mu taxaw fa gërëm ànd bi waaye nag sëriñ saaliw bu ko daa boolee nit da ko daan wax ne ko ànd leen liggéeyal sëriñ tuubaa ànd leen liggéeyal sëriñ tuubaa wala boole naa la ak beeco boo demee nee ko maa leen boole ngeen ànd liggéeyal sëriñ tuubaa bu fekkee moom nekku fi boo ko xamul it daana wax sax nit ne ko sàllaaw boo ko laajtee rek danga ko xam ku siiw la boo demee ne ko maa leen boole loolu nag daana faral di am lu baree bari ci nit ku dëkk sowu fii ci ndakaaru wala yu demee noonu nga xam ne yeneen région Sénégal yi mu ami taalube dafa dem ak cant walla mu dem fa tournée nit ñi jébbalu ci moom waaye ku masaana jébbalu ci sëñ Saaliw dëkk ndakaaru lay boole ak moom li ci ëpp mooy koo xam ne wóor na ko ne bu ñëwee ci moom dina ànd ak moom liggéeyal sëriñ Touba nit sax jox na sëriñ Saaliw camion camion ba bam ko koy jox dana ko li ma ci jublu de mooy mu liggéeyal sëriñ Touba ba mu demee sëñ Saaliw daa jël kamiyon bi jox ko sëñ Béthio ne ko xam naa ne lépp lu ma la jox dina liggéeyal sëriñ Touba muy jëmm joo xam ne àddina sépp seere na ko ci bëgg sëriñ saaliwu ak ci liggéeyal ko waaye nag ñun bi ñu àndeek moom dem ba yenn at yi ay kaat boobu mi ngi ci digg doole bi ñu seetlu ne mbooloo mi bari na doole ji bari na waaye nag diskuur bi mi ngi tàmbali di changer mooy sëñ Béthio mi daan xuloo danga baax sëñ Béthio mi daan xuloon sax ne yaay nangam yaay sëriñ saaliwu sax na ko ba am na ci jëwrinam joo xam ne mas na ko ne foo déggati ñu ne ma yaay sëriñ saaliwu na nga jug weddi ko waaw dëgg la nag sëriñ bi yu mel noonu daana ko faral di wax ak nit naan ko sàllaaw boo demee ci diw day na nga jàpp ne sama jëmm jii la boole naa leen wala loo ko jox day mel ni man nga ko jox sëñ saaliw bu waxee sëñ Béthio yaay man maay yow wax na sëñ Mbay Jóob ci mbuur ne ko man ak seex Jaxate doomi sëriñ Amsatu Jaxate lenn képp lañu wax na sëñ Béthio cuun ne ko sëriñ góoratin moom yi ma la yebaloon ne la dem fa nang fa dem te xam ne boo fa demee man mii nga fay fekk wax na sëñ Béthio moom yi ko na dem ci sëñ mën ñëng jullit mu ñaanal la na ma ñaanal na ñaanal lislaam bi ndax mbay ci sa wewu tànk foofee de boo fa demee man mii nga fay fekk ak ñeneen jëmm yoo xam ne seen tedd nga ak seen jeex ci sëriñ saaliwu tax na sëñ bi daan leen méngale ak jëmmam wax na sëriñ Muntaqa mii tey di boroom Tuubaa ne ko dama la seexale ak sama jëmm ji loolu sëñ Saaliw it wax na sëñ Béthio ne ko maak sëriñ Abdul Ahad lenn képp lañu kon bu fekkee wax yooyu ci la ñuy sukkandiku ba mel ni dañoo bëgg yóbbu sëñ Béthio foo xam ne yii xew dana ko mën a justifier du dëgg du yoon ndax moom day daana wax ni sëriñ bi de la mu xam ba tax mu ne ma maay yow moo ko xam waaye man day xam naa ne duma sëriñ Saaliw ndax moom la mu doon xajul ci man ab taalube la boo xam ne la ne ci moom ci lu baax lépp sëriñ bi la ku jeex takk ci sëriñ bi la ku ko bëgg la malgré nag debordement yu bari yoo xam ne xëy na moo indi woon ñun ñu naqarlu lu bari ba mënatuñoo ànd ak moom bañ ko bàyyee itam nekkul bàyyi di ko xarab wala di weddi la ko sëriñ Saaliwu defal lañ ca softe bokk ca lañ daan bi te booba it xam nañu ne wér gi yaram yóbbee na ko lu baree bare bari ndax wér googu moo dem ak tawat yu bari yeeg nangam foofu nag la ñu tàmbalee di ko manipuler fexe ba liggéeyam bi nga xam ne moom la séqoon ak taalibe yépp mu teg ko ci loxo ndaw si ñu jëkk a def ay plan kere li ñuy wax ay jëwrin universel wax ne dañ koy tàmbalee rek ndax buñ jógee ne dañuy seexal rek euh, day am lu mu nuru euh, ndax euh, foofu rek la bëgg a dem waaye day am yoon wum ko jaarale te booba yëg na ne mbooloo mi ñu bari ñu ngi tàmbalee deltu ginnaaw ak di ragal ak di bàyyi ñu bëgg ak njàppaan wala ay fiir yu ñu leen jàppee wala lu ñu leen dollee ay yaakaar ba ñu mën a toog biñ jógee ci loolu mu ne seexal na tàmbalee ko ci kenn ci soxnaam yi léegi nag foofu ayda jàlloo ci boppam moo ko daan seexal loo nit ñi moom liste moom moo daan wax bi seexalal diw seexalal diw seexalal diw waaw wax ne moom moom nañ koy woowee Serigne Cheikh Aïda jàlloo pour wane ne am na différence digganteem moom ak yeneen seex yi te loolu mi ngi ko ko defal le 14 février bi passé moom la doon màggal noonu wax ne sëñ Béthio yow moom léegi bu la kenn waxati see Cheikh Béthio nañ lay wooyee sëñ Béthio léegi yóbbu sëñ Béthio niveau boo xam ne day wax ne dootul ab seex mooy sëriñ Touba ayda nag di seexam bi nga xam ne mooy seex bu mag bi ñu dem ba yàgg ceex ya deñ te ci biir seexal yooyu doon na ko wax yaay man may yow waaye la mu ca jublu rek mooy ba léegi wane ne am na différence digganteem ak ñeneen ba mu ko waxee loolu nag nit ñi jóg coow li bari ñun ñu xeex ci xeex ci xeex ci ba coow li yëg sëñ di Muxtaar ba mu dindi seex yi mu politikaat waxaat ba sëñ Béthio wax ko ne ko yaay man maay yow mu bëgg sukkandiku ci loolu nag gannaaw léegi comme sëñ Béthio nee na ko yaay man maay yow te sëñ Béthio moom du ab seex mooy sëriñ saaliw te sëriñ Saliou mooy sëriñ Touba kon euh, li ci des xel a koy mottali ndax mu gone yi ci boppam am na ñu daan waxtaan ci seen biir di wone ci théorie kaal sëñ Touba ga nam soppi koo doon musóorub ayda Diallo bii lii nag mooy li nga xam ne ñoom ci lañu sukkandiku ay boroomi xel lañu wax nañ leen ne ñoom xeexuñu ngir Aïda mii doon xalifa sëñ Béthio xëccootul cëru jëwrin ndax moom ci boppam sañ-sañu samp ay jëwrin bay jëwrin universel fi mu ne moom la yor di ko doxal ci seen biir waaye dafa ni ayda daal mooy dëgg dëgg jëmmi sëñ Béthio te sëñ Béthio mooy sëriñ saaliw te sëriñ saaliw mooy sëriñ tuuba kon ayda jàlloo mii gone yi liñ ko jàppee ba ànd ak moom mii dogu ci mooy dañu jàpp ne mooy sëriñ tuuba loolu nag rus naa jàkkarlook àddina di di def vidéo ñu may xool ma di ko wax gis ngeen wujjam bi taxaw àddina sépp di ko dégg mu ne jàng na ab téere bu ñuy laaj ndax yàlla du jigéen kon léegi ngeen dégg ñu ne leen Aida Diallo mooy yàlla mooy yonent bi mooy sëriñ Touba lii nag boobaak léegi moo tax fiñ ŋànk duñ ko wacc liñ jàpp duñ ko bàyyi ay seytaane yu am xel lañu yu bona bona bona bona bon yoo xam ne lii bu ci yoonu murit jógul kilifa yi waxuñ ci benn taxawaay amu ci wallaahi bis buñ ko yëkkatee ba mu ne fang ca kaw ba àddina sépp déggandoo ko bu boobaa ngay dégg coow loo xam ne kenn du xam fu mu jóge te kenn du ko mën a téye te ñoom jàng nañu sisteemu corruption am nañu ay ay pexe dañoo mën a corrompre nit te système boobu la ñuy doxal kër sëriñ si ñu ngi miine bëkk néegi di miine yenn soxna yi sëriñ si di miine yenn jëwriñu sëriñ si am na ci kilifa yu ñu wax ne dañ leen a amee li bor xaalis bu baree baree bari mujj ñu leen di booleeg ay ministre ñu leen di jàppale ak di leen taxawu ayda jàlloo bu amee autorisation baare Sicap Foire 48 heures jot ci ministre de l'intérieur di gërëm président de la république di gërëm première daam xam ngeen ne am na ay kilifa ci yoonu murid yu ko introduire jàppale ko ba mu jot foofu moom rek jotewu fa kon nag ah ñi leen di jàppale te bokk ci yoon wi nañu xam ne kat ñu ngi samp sëriñ Touba mu jigéen bokk ci seen wax ñoom xam naa nag bu fekkee ñoom daf dañ leen a ndar kepp fi barab ba mu jaral leen ñuy taxaw di màbb yoonu murit wala mu wóor leen ni ñii ay musrikoon yu fés lañu ak ñoo xam ne mën nañoo théorie ba wane ne yàlla kat mi ngi ci kaw suuf fi mu ne nii te jigéen la ay ca bismillahi rahmaani rahim noo ngi leen di déglu di leen seetaan ak ñoom lii nag laa amoon loo xam ne moom dama koy wax ci audio mu leer nañ ñëpp xam nañu kiy wax man la Ceddo Murid Saadix waaye baat yu ñaawee nii ak lu réyee nii rus naa jàkkaarloog àddina di ko wax mu jëm kaw waaye wallahi wal quraanil hakim wa rabbul kaaba fii lañu xale yi nekk pour ñoom Aida Diallo mii mooy sëriñ Touba te it moo tax faalewul sëñ Mountakha dama ni Aida Diallo Serigne Mountakha mii ak sëriñ Cheikh Saliou mii ak képp ku sant Mbàkke wuutelewul ak butéelu kireen bu jeex dara ngeen ko saful tegu leen fenn faalewu leen moo tax ku ciy wax mu ne la jàkk ay gëtam di la xool bu sa kàddu di daanu kàddoom di jóg bu kàddoom di daanu bu sa kàddu di jóg kàddoom di daanu mi ngi leen koy damaj di ko dagg santeg yéen booba ak léegi ndax da leen tegul fenn faalewu leen ragalu leen gëmu leen lii mu gëm mooy xaalis bii muy dajaleloo gone yi ñu di ko jox mu ci dund di ci di ci doxal mbiram mii seetaan leen nag ba yëf yi àgg fa mu war a àgg ba ngeen dégg ko nii ma ko waxee nii mu naqari leen fekk àddina sépp wax na ko te kenn bu boobaa du ko mën a téye asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu man dama cee sonn ma ci wax